donc tey si jeudi on va parler euh, politique et pour loolu dañu dalal tey suñu invité di euh, Ngari Ngom euh, bokk ci cellule de communication bu Mimi Touré Alioune Guèye bàyyi la nga dalal suñu ganu bés bi. Ngari Ngom ñu ngi lay nuyu. Alioune Guèye may fàttali ni yaa ngi bokk ci cellule de communication bu Aminata Mimi Touré. effectivement notamment ak seen mouvement Mimi 2024. d' abord yéen def actualité notamment moom Aminata Touré. mandaam euh, de député bi nga xamante ni euh, nangu nañ ko foofu ci euh, assemblée nationale <coughs> gis nañ ko aussi barki démb mu daal dem signer pétition collectif jàmm gën troisième mandat yéen déjà bañ ko jëlee à l' assemblée nationale xam naa aussi injustice ngeen koy ngeen ngeen di clamer. tout à fait et d' abord nga permettre ma ma nuyu cette plateau jeune bi nga xam ne dama koy saluer d' abord muy plateau bi ma fekk. wax dëgg yàlla muy lu am solo yaakaar naa ne Sénégal également il faudrait que la jeunesse ait sa place euh, surtout que li nga xam ne mooy communication muy rôle bu fondamental ci li nga xam ne mooy suuxal démocratie donc laal moo seddee woon la lool conscient des jeunes par rapport ak li nga xam ne moo xew ci réew mi alors d'après li nga ñëpp di turu soxna Aminata Touré mi nga xam ne également li nga xam ne mooy injustice li ñu jàppee injustice yaa ko wax mais illégal mais immoral mooy que tey dañu ne sur le principe la constitution dit député kenn moo lenn mooy tax mu xañ lu koy xañ li nga xam ne mooy mandat mooy dissolution assemblée nationale c'est ça le principe en principe bi mooy bu ñu la xasee ba fal au suffrage universel lenn moo mën a tax nga xañ ko mooy sa mandat bi jeex cinq ans la au Sénégal wala mu am dissolution de l'Assemblée nationale ce qui n'a pas été le li nga gis mooy que tey un acte illégal et immoral illégal amuñu pour tey dàq soxna Aminata Touré au niveau de l' assemblée nationale mais immoral parce que dañu jàpp ne tey kenn gënul mérité Aminata Touré mu nekk tey député au niveau de l' assemblée nationale. pourquoi parce que tey jàpp nañ ni tey li nga xam ne moom moo majorité assemblée nationale madame Aminata Touré moo nekk nga xam ne moo jiite woon tête euh, bi. def ci liggéey bu am mucc ayib taxawaayu représentant du peuple. parce que ce qu'il faudra comprendre et elle elle s'est elle s'est nationale taxaw taxawaayu li nga xam ne moom la jàpp lii mooy li nga xam ne mooy njëriñu askan bi. mais gis nañu waa APR bi ñu génnee ne moom Aminata Touré dafa yàgg a violé li nga xamante ni mooy euh, règle parti bi di alliance pour la république donc euh, de sa fet loolu tax ñu daal di sàkku ñu daal di koy euh, jëlee ci assemblée nationale di moment que wuyootul ak turu parti bi. kon euh, bëgg a des ci coalition bi alors que parti bi moo jiitu coalition bi est-ce que du loolu moo tax ñoom ñu daal di ko fay jëlee. waaw mais ñun xam nga ñun dafa am loo xam ne moo ñu tënk. Sénégal bu nekkee fu mu nekk tey nga mën a xëy jóge sa dakk kër def nii ngeen def sa wu jekk war mën a wax jàkkaarloog Sénégal yi am loo xam ne moo ñu tënk di ñu aar ku nekk da nga am fu lu la yoon may ak lu la yoon xañ loolu moom li ko li la yoon may nag moom may madame Aminata en tant que représentant du peuple mu mën a ne man je suis non inscrit li mooy que tey ji damay tënku li parti wala di tënku ci man may tënk loo xam ne jàpp naa lii bu ma ko gisee sama principe ak li ma gëm wane na ni lii la njëriñu askan Sénégal nekk ma nekk ca et que jàpp naa ne tey aussi li ñuy naan violation de la amu fa parce que tey lenn moom moo mën a permettre tey ñu dàq madame Aminata ñu jëlee woon ko foofu comme député mooy mu démissionné du parti euh, def defu ko encore il faudrait-il rappeler que tey madame Aminata Touré elle est pas au nom du parti pas à travers le parti APR mais il est député à travers une coalition boo xam ne moom moo nekkoon tête de bi donc tey gisuñu benn violation boo xam ne rek mën nañ ko euh, jàpp ni tey posé na ko comme acte pour que ñu war a mën a nekk loo xam ne euh, dañ ko ciy war a dàq. est-ce que Aminata Touré nekkul euh, une frustrée ñu bëri jàpp ni sans doute ko joxul président assemblée nationale moo tax mu daal di génn. Euh, adopter cette nouvelle posture est-ce que du loolu moo tax. waaw mais dama lay wax benn affaire loo xam ne tey man j'ai eu la chance quand même d'être dans le cabinet de a été prime euh, premier ministre et qu'elle a été au conseil économique social ba tey jii donc man j'ai été toujours man dama am chance nekk témoin des faits c'est-à-dire nekkuma loo xam ne dañ ma ko wax wala kenn man maa ko fekkee bi ma fekkee mooy madame Aminata principe yi mu mës di jàpp moom la mës di continuer tey parce bi li ñuy wax mooy lan barke de moo njaay lan leen gis dañu gis cour des comptes def benn publication mais moom dafa ne nag gouvernement bi ñëw exprimer wu par rapport au sénégalais xamal leen lan la li xew waxul sax euh, kii dafa ne ñëw te yaakaar na loolu mooy également rôle peuple bu ñu waxee ni tey lan mooy fondamentalement le, le problème du président Macky Sall la question du L'article 27 nous dit nul ne peut faire euh, le nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs loolu mu nekk loo xam ne da ko gëm ah lan moo xew tey dañu toog depuis dix ans aujourd'hui dix ans avant dañoo Madame Aminata Touré dafa bàyyi mu yor muy fonctionnaire international ko ñëw xeex si li nga xam ne mooy troisième nekk dans le gouvernement premier ñu gis ne premier candidat mandat au président Macky Sall dafa promener fépp ak ñoom ak yi ñoonam muy Madame Aminata Touré muy premier ministre bi fi nekkoon que ñun deux mandats la ñuy def mais on a vu depuis 2019 bu président Macky amee un deuxième mandat ba léegi la pare ci wax jooju képp koo xam ne da ciy wax jëmale ko ci kaw waru koo def kooku moom dañ lay dàq képp ku ko jëmale ci da ko war a def kooku moom dañ lay promouvoir et c'est ce qui parce que tey day mel ni ñun dañu war a dafa am dix ans après te yaakaar naa ni man mii bi may nekk étudiant am yaakaar ci Macky gis ni Macky président ma après ma koy ma koy jàppale. aujourd'hui est-ce que Aminata Touré bu nekkoon fële euh, présidente assemblée est-ce que tey dina quand même doxalee mu nekk doxalee ni plusieurs personnes madame Aminata Touré bu leen leeroon ne madame Aminata Touré bu nekkee assemblée nationale day nangu troisième mandat moom dañuy bàyyi mu nekk président assemblée nationale. Euh, voilà parce xam nañ mosuñu ko dañoo mos a jàpp ni xam nañ parce loolu mooy euh, comportement xam nga dafa am loo xam ne tey euh, moo ngi mel ni fii ñu nekk nii tey ci Label TV am na loo xam ne bu la mettee nga nekk ci biir Label TV da koy wax ci biir Label TV. Hmm. soxla woo génn wax ko si mais boo demee ba nekkatoo label tamit am nga droit tamit donc def ko wax ko parce que tamit foofu nga ko mën a waxee loolu moo xewoon madame Adama Mimi mu nekk ci biir dafa mës a porter ce combat là que a jeex et que encore une fois bu lu mu ko ëppalee lu dul ni moom dafa bokkul ci ñu gëm ni dañoo dafa président Macky Sall dafa war a def troisième mandat loolu da ko mës a principe la boo xam ne ko mës a défendre à l'intérieur donc tey euh, bu fekkoon ba mu fay nekk nag mosu ko wax bu boobaa dina jàpp ne looloo tax mais ba mu nekkee ci biir la ko doon défendre rawatina tey ba mu génnee félicitation nag acte moom nit nit rek nga mën a doon ak koo mën a doon muy kilifa ak keneen ak keneen euh, yàlla si boppam sax da koo nangu lu dëgg mooy que tey jii acte bi dafa nekk loo xam ne kenn rafetlu ko ko sénégalais lambda bu nga ndaw boo gisee danaa la man li ñu def soxna Amina Touré dafa ma metti c'est capital de sympathie bu extraordinaire boo xam ne sax mën naa ne am na ko ci maintenant nag ñu yàq ñun ce qui est sûr madame Aminata bu amoon position boo xam ne eh, moom ñi fa nekk tey moom lañ am mooy que jàpp ni président Macky war na mën a def troisième mandat lépp lu mu wax léegi nekk ay benn wii bi ce qui est sûr aujourd'hui c'est le président de l'Assemblée nationale Mm-hmm. alors donc euh, euh, ñu gis euh, Aminata Touré mu daal di signer pétition bi nga xamante ni waa jàmm gën troisième mandat indi ñu bari wax ni rek dafa bokk ci xeexam ñeneen ñi ne benn moyen la pour moom mu daal di dajale le maximum de personnes yu ànd ak moom via cette pétition nan nga gisee loolu. waaw mais xam nga c' il faut pas oublier que madame Aminata Touré fait partie des neuf personnes administrateurs internationales on pourrait dire c' est pense que quelqu'un l'a dit mën nañ ko ko nangul par rapport vu fi mu jaar Jeune Afrique et activité politique yu mu mën sa défendre yëpp. man de am dafa bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy gérer monde bi administration monde bi muy doxee. te moom amul kersa toog ndékkeeg ñoom wax ni carrément ndékki naag diw ak diw waaye ba may ndékkeeg ñoom nee leen président Macky Sall li mu bëgg a def tegu ko ci yoon kon kooku tey du question de am ñàkkul euh, audience publique ñàkkul nga xam ne influence ba nga xam ne tout tout le monde sait que madame <laughs> parce que quand quand quand tu es international depuis plus de voilà donc jaar nekk ministre de la justice à l'époque de la justice quand justice en fait jóge fa nekk premier ministre jóge fa nekk conseil économique social mais jóge fa aussi porter combat euh, tête de liste kooku tam tey nekkul à la quête de de de de de d' audience wala lu mel noonu li am solo mooy que tey tam dafa nekk loolu day wane encore une fois que moom elle est constante dans sa démarche loolu également day nekk suite logique politique par rapport ak nga xam ne parce que bul fàtte ni madame am Touré dem pas en tant que leader politique mais en tant que citoyen sénégalais et vous gis ngeen tey réaction bu ñu ñaam kenn yuuxu ko fa kenn waxu dàqu ko fa au contraire dañ ko fa ovation ça veut nga xam ne ñoo ngi koy suivre gis logique am depuis depuis toujours bañ koy découvrir mooy que dafa resté sur ses principes yi nga xam ne moom la gëm que politique aussi mën nañ ko def jàpp ànd ak suñuy valeur nee na candidat la à l'élection présidentielle de 2024 gis nañu euh, depuis euh, bi mu amalee euh, sortie bi ci la ko daal di xamle yéen instant est-ce que yéen a ngi euh, waajal euh, maanaam boog terrain bi dem gis Sénégalais yi pour euh, mën a préparer échéance électorale boobu. et tout à fait man tu également j'ai la chance de au moins de xam naa nekk à l'initiative de au moins euh, peut-être 96 voire centaines de groupes de soutien. muy président madame madame de la candidate madame Aminata Touré yoo xam ne ñoom ñoo ko doon réclamer à travers des plateformes digitales di ko seet si di ko koy madame Aminata Touré bi mu jógee assemblée ba léegi tous les jours elle reçoit des personnes des militants des sympathisants et des souteneurs et des leaders politiques euh, dans son à son Et bientôt, on va inaugurer notre, notre chaise. je pense que tey personne ne plus. Elle a toutes les aptitudes et les euh, facultés humaines pour vraiment pour porter, euh, présenter comme candidate au président. Parce que là, le gum le bug bug, l'ambition pour le Sénégal. Et je pense que c'est ambition bobu nous nak depuis nous déclarer ambition bobu nak vraiment le subir certaines injustices bi di gëna dem parce que nous dañu jappon li xew keroog assemblée play nationale le 12 septembre rek doyoon na mais depuis que mu déclaré sa candidature quand même on a mm. loolu sax gis nañu benn euh, wala sax ay journaux génn woon ni moom été épinglée par un rapport de l'IGE quand elle était présidente du conseil économique social et environnemental est-ce que loolu tamit mënul nekk euh, une épée de Damoclès boo xamante ni mooy plané au-dessus de sa tête euh, parce que gis nañu ñenn acteurs politiques yi bu ñu nekk menace ñu indi leen rapport euh, IGE le cas d'Idrissa Seck Khalifa Sall tey jii moom Aminata Touré est-ce que menace boobu yéen a ngi koy bàyyi xel. xam nga yow aussi loolu say question dama koy dëggal rek ndax yaa daanaka boobu posé question yow da ngay andi sax ci biir wax ji loolu lay wax ne lu naturel mënul nëbbu lu ne comme lu ne naan lu ne fan nga du ko jeex. ah voilà tey soxna Amina Touré bu fekkee dafa mën a nekk dafa mën a am rapport bu ko épinglé ah pourtant rapport ñu teg ko fële jiital ko ba mu gañe ñu dàq ko soog mu dem ba déclarer sa candidature ñu soog génne loolu day wane li fi nekk. kon loolu nga wax ni wax justice amul tous les aspects politiques. du mm. point de vue politique en tout cas dañ ci gën xoos day xaw doy waar parce que man barki de moo. parce que si concerne les opposants dañuy. Mm, voilà machine day gaaw avec le président justice moo amul problème rapport amul problème et cetera man dama jàpp c'est la diversion. et c'est la diversion politique qui ne passera pas pourquoi parce que tey barki di moo Ndiaye bu ñu mënee épingler cour des comptes épingle cour des comptes laa la wax xam nga ko euh, kii euh, e, e sa IGE moom mën nañ wax ci as présidence le rojet et tout ça mais cour des comptes c'est parmi nos cours et tribunaux une institution boo xam ne dafa def fii benn rapport boo xam c'est extraordinaire au moment où yow mënoo jóg dem génn sa kër nu mu la neexee man ñu tëj ma yow ñu ñu ñu euh, ñu ñu ñu wàññi say ñu limité say say droit au même moment ngay dajal xaalis ñi kii kii jaaykat caaf bi andi dërëmam keneen ki andi euh, leneen keneen ñu dajale muy xaalis boo xam ne dafa dem ba 1000 milliards ñu ne kat dañ koo kii foog naa loolu ci loolu lañ waroon a wax maintenant quand on va divertir les gens maintenant quand on va

am na koo xam ne dafa commencé woon ci benn gestion budgétaire mu yeggali ko am koo xam ne ba mu fay jógee moom la bàyyi mu mu continuer gestion mu ne léegi man li gën a yomb sa li gën a leer mooy lan nañ def nañ ko des déclassifier d' abord parce koy wax boobu léegi mais gisoo ñu déclassifier ko mais d' bu ñu ko déclassifier dañ fexe ba man ki ma fa fekk nga xam ne man maa yeggali kii parce que mënoo mënoo ko àtte tey parce que euh, budget session budgétaire la ka fekk ak man la ma fa def ak ñëw ku ma fa bàyyi nañ tegandoo ñetti yooyu Sénégal yëpp te caméra ñëw yéen ngeen ñëw les journalistes ñu gisandoo a fait quoi donc je pense que kooku moom amul lu muy nëkk fu la ko mais aujourd'hui lan moo nekk seen relation xam nga dans un pays moom la libre démocratie mooy dafa am parti au pouvoir parti opposition boo nekkul ci booy politique nekkul ci pouvoir yaa ngi ci opposition il est au pouvoir. est dans l'opposition et c'est loolu c'est primaire maintenant rôle bi lan la dafa am loo xam ne nag moo ñu boolee te bu ñu boolee day am loo xam ne dañ koy fàtte mooy li nga xam ne mooy suñu eh, kii personnel je pense que je salue euh, d'ailleurs l'initiative du président Ousmane Sonko par rapport à l'appel du président Madame Aminata Touré qui disait que dañu war a def une force benn dañoo boor a boole dafay forte opposition forte et que ma démb moo ngi lancé cet appel là et je pense c'est ça gis nga dafa am foofu ne foo toll Sénégal bu ko toll ñun dañuy fàtte suñu bopp man damay fàtte Amina Touré yow nga fàtte Label TV ngeen fàtte ñu jiital li nga xam ne moom lañ bokk te kenn mënuñu ko muy le Sénégal Amina Touré ànd ak Ousmane Sonko non mais bu ko Sénégal bu Sénégal laajee loolu xeex xeexal Sénégal jó jëmale Sénégal fi ñu ko fu ñu ko bëggoon yóbbu bu ko bu ko laajee loolu amul benn problème pour mu ne ko parce que encore une fois il faut savoir que politique du affaire personnelle c'est une affaire publique c'est-à-dire da ngay toog am loo muñal sa bopp pour askan bi ñu ñu bokk pour Sénégal bi ñu bokk donc yaakaar naa ne bu Sénégal bi ñu bokk bu ñu fa yeggee moom ci boppam loolu du nekk benn problème te na ko d'ailleurs. par rapport ak euh, Mimi Mimi Touré euh, ba tey yaa ngi wax sànq ni euh, xamoon nañ peut-être que bu fekkee ni moom lañ def présidente de l'Assemblée nationale xamoon nañ ci biir Benno que moom d'accordul woon pour troisième candidature donc Mimi ci boppam conscientoon na quand même que bu génnee nekk non inscrite am na leneen ak leneen lu ko lu koy xaar. waaw mais xam nga xam nga en fait c'est mooy li ma wax rek je pense que tey jii madame Amina Touré elle a eu la chance de d'occuper certains postes donc xëy na du question de poste du question de titre moom moo tax muy dafa am mais dafa am un objectif bien précis mooy faire la politique autrement que tey jii eh, yow bu fekkee da ngay xeex loo xam ne da nga jàpp ni par principe la

ce n'est que le début d'un commencement mais loolu taxu ñoo dellu yotta li nga xam ne mooy suñu kay et encore une fois je sais parce que tey kon da ngeen jàpp ni gars yi duñu bi ñu leen jëlee ci assemblée nationale duñu bàyyi mu seet ah, bien ah, de Abdou de Senghor en passant par Abdoulaye Wade le président Macky Sall est devenu champion de li euh, qui en fait euh, euh, l'élégance politique moom élégance politique moom dafa bokk ci est-ce que dafa xam biiram ak biteem sans doute ñu xam tax et puis mais en fait c' moom comme je te dis nekk nekkul madame Aminata Touré bul fàtte ni Macky lépp lu mu doon mën a mës di wut le président Macky Sall lépp lu mu mës di wut en temps en terme de ndomba mooy mooy élection yooyu madame Aminata Touré mës di jiital ci wetam. de je me rappelle de 2012 je de euh, élection 2016 yi 2019 ah euh, et cetera ba ci élection euh, président législative yi passé donc tamit aussi mënoo ko ñàkk tey mu nekk koo xam ne day nekk chose facile pour yow c' est il y a un peu de d'élégance en fait en réalité je pense que euh, il y a un minimum d'élégance en, en réalité dans toute chose et je pense que en, en, à fortiori la politique qui, qui, qui se trouve être la chose publique gestion de la chose publique. est-ce que tey tamit sénégalais nay accepté Aminata Touré parce que ñenn ñu ngi naan elle est un moo tax mu génn fële ñëwaate est-ce que ñoom image bi nga xam ni Aminata Touré moom lañ yàgg am ci moom nekk ci côté gouvernement yàgg ànd ak Macky Sall les sénégalais aujourd'hui pare nañ pour accepter waat ko en tant que opposition la nga xam ne moom lay wootee. Euh, mais à tout état de cause xam nga nekk ci gouvernement ça ne pas dire que da bon c'est-à-dire <laughs> da nekk ci gouvernement aussi c'est pas pas dire duñu la accepter nekk ci gouvernement nan nga fa nekkee woon c'est que loolu la war a wax c'est-à-dire est-ce que man madame Aminata Touré bañ ko defee ministre de la justice taxaw na taxawul waaye boo xam ne dafa méngóol doon xaar ci moom ba mu nekkee primature est que war na liggéey liggéeyul ah, j'ai j'ai des collaborateurs internationaux a Euh, c'était une réalité avec madame Aminata Touré. tous les dossiers dañ doon gaaw. PDS bokkoon nañ ci tax euh, ngeen daal di jóge assemblée nationale. Mm-hmm. gis nañ démb sax euh, kii seen kàddu di Nafissatou Diallo. Mm-hmm. nee nañ Aminata Touré dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoo humilier Karim Wade le président Wade le PDS yéen PDS bis bi bi am seen diggante. est-ce que yéen a ngi koy moo tax nan ngeen ko gisee tamit. waaw mais moo tax ma ne il faut que les gens savent faire la part des choses c'est-à-dire la politique laa nekk aussi. du yaayu kenn ko moom du bàyyi kenn ko moom du yëfu kenn dafa nekk loo xam ne boo demee ba décider da nga koy def xamal ne yëfu askan wi la yëfu ñëpp la ñëpp li nga bokk cest à du baal mag Aminata Touré mais eh je te du baal Aminata Touré te mën a baal Macky Sall c'est pas du sérieux parce que en fait en réalité bu nekkee dañu jàpp ne madame Aminata Touré moo doon humilier Euh, Karim Wade mais madame Aminata Touré ministre la justice il ne défend il ne il, il ne il ne définissait définissait pas la politique judiciaire de, de ce ah, décision yi jógewuloo ci ah mais attends ça c'est clair tu sais que même clairement quand hmm. est-ce loolu. loolu tamit yéen a koy xool euh, yi souvent gis ne exécutif moom mooy joxe ordre. yeneen pouvoir yi di di di di euh, di exécuter ah. et pourtant euh, définir nañu li nga xam ne mooy la séparation du pouvoir l'exécutif législatif est-ce hmm. que yéen acteurs politiques yi loolu tamit warul nekk combat non non non effet faut pas faire l'amalgame je dis pas par rapport ak s'immiscer dans l'action judiciaire qui se trouve être un pouvoir judiciaire séparé c'est-à-dire dans le, la constitution il y a trois institutions que ce soit pouvoir exécutif pouvoir législatif bi nga qui sont et le pouvoir judiciaire maintenant nag dafa am loo dans la politique de la, définition de la président de la République foo faut ñu nangu ko tamit moom mooy nommé procureur de la République bi nga xam ne moo censé défendre nos intérêts et que le procureur de la République dépend du ministre de la justice de la ah donc loolu aussi c'est c'est ça ça c'est la constitution noonu la war a doxee ça ça n'a rien à voir par rapport à l'exercice l'exercice nag mooy que tey yow yow en tant que euh, ministre de la République nga mën a woo juge bi ne ko tëjal ma diw loolu mooy loolu dans la parce que dafa am fu mu yem cest dire quand il y a euh, au niveau du pouvoir judiciaire dafa am les avocats les magistrats debout et les magistrats euh, assises les magistrats assises Aminata tel ministre de la justice mënul woo benn ministre d'ailleurs euh, justice wax ko d'ailleurs kii wax na ko ki nga xam ne moo nekkoon à l'époque le juge de de la CREI nee na moom madame Aminata Touré rek la gis koo xam ne dafa jëloon ce ce combat là au sérieux c'est-à-dire musul jël téléphone woo ko di ko ne defal lii ak defal lii ça ça tout dire quand un ancien ressourcelaine c'est que li nga war a xam mooy cette affaire il faut ñu rappeler ko moo ngi mel ni tey 2011 xate xaju fi quand même eh, ñoo ñëpp lañ jëloon jëloon ni eh, y avait en un certain moment ku ñu considéré woon comme un de la ministre ministère air mer wala dégg nañ ko fi quand même c'est que et que on avait dit c' est une demande sociale que li nga xam ne moom lay gérer mu rendre ci compte. très bien et que loolu euh, madame Aminata avait élément bi. waxtu bi jeex na mais mm-hmm. rapidement ci élection présidentielle 2024 moom nee na Aminata Touré candidat la ci est ce que yéen ngi sóoraale aussi parrainage euh, te aussi gis nañ moom Aminata Touré presque euh, on peut dire élection yi fi jot am yëpp. Euh, daanaka remporté wul la victoire ñu bëri jàpp ni euh, moom euh, élection elle n'est pas championne en élection. tout à fait loolu. Hmm. mais waaw loolu xam nga loolu lépp si subjectif mais li ma la mën a wax rek mooy gis nga madame Aminata Touré je pense que Grand Yoff bi nga xam ne man maa ngi foofu. à l'époque 2014 2014 c'était fief Khalifa Sall. Hmm. elle ramenait le le le score à 8000 voix quand même hmm, pour quelqu'un qui qui venait qui était à la primature et que peut-être en moins de deux ans nga mën a def cet exploit là c'est-à-dire loolu c'est relatif gis nga affaire base am na base amul base c'est relatif tey jii Sonko par exemple Ndiaye gis nga fi ba muy soog dem ni mu fi demee on tey Euh, incontournablement euh, une force politique au niveau de l' opposition. loolu loolu du loolu c' est là très relatif mais li nga xam ne moo am solo rek ma bëgg ko wax foofu mooy que ni. Euh, madame Aminata Touré en tout cas elle a reste une c' est pas cette diversion ou cette kii moo koy tax merci beaucoup mu fekkee que di ko encourager aussi franchement. mbokk yi ñoomoon mbégte ñun tamit teew fi depuis huit heures ba tey ñu leen jox di daje ëllëg bu soobee suñu borom di leen ñaanal kenn lu jàmm. merci ah bien sûr Fatou Sidibé ñu ngi remercier kii di Ngari Ngom ci tont yi nga xam ne indi nañu ko wax képp koo xam ne ñu seetaan suñu Label TV dina jox rendez-vous suba incha allah. merci Willy merci euh, Alioune Guèye donc remercier bu baax euh, suñu invité tey di Ngari euh, Ngom bokk ci cellule communication bi Mimi <coughs> Touré donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis huit heures ci suñu émission suñu matinal donc dig daje demain incha allah ci beneen matinale yeneen thème yeneen invité d'ici là portez-vous très bien et restez connectés au programme de suñu Label TV waa kaa bi ñeneen ñëpp ngi ñëw pour li des ci journée bi ñu yendoog jàmm